ayca jaajëfal na leen mbokk internet yi nga xam te ni yéen a ñuy suivre sur Thioker ah ñu ngi leen di bëggee bu baax di leen ziar di am mbégte bu rëy ah jàkkaarwaat ak yéen ci chaîne YouTube bu mag bi nga xam te ni moom moo di Thioker TV tey nag maa ngi biir Pikine diwaanu Pikine laa nekk yaakaar naa ni champion bi ma toogal ngeen jàkkaaroog moom xam ngeen ko muy Ziza tey nag dama ñëw fekk fi mafia ma ah. ah, <laughs> mafia waaye wax dëgg yàlla bu ma ñëwee ambiance ma fekk fii neex na macha allah Lamine Ngom nag moom esaaru esaaru esaaru kii bi la ak kan nu sawaaj nu mu tudd aw naar <laughs> tey ñoom laa fekk wax dëgg yàlla ma dalal Ziza ñu bëgg a waxtaan ak moom ci actualité làmb ak actualité réew mi waaye fi ñu njëkk rek di jaale ki nga xam te ne moom moo di Aziz Dabala ah, di ko masaw di masaw famille wax dëgg yàlla doomu Pikine la dëkk biir Pikine tiis bu mel ni dal ci képp koo xam te ne da nga yeewoo Pikine ñu ngi leen di masaw Ziza laa dalal ñu bëgg waxtaan ak moom ci loolu deux minutes rek mu wax ñu situation boobu bëgg ñëw tamit ci coach Bakary bi nga xam te ne wax dëgg yàlla nee tudd mbëri ci bokk tuddul mbëri ci bokk xel yi tee nag ñu naan ndax mbëru Pikine ci la ñu am ñu naan ci la ñu loolu yëpp nañ ci waxtaan aussi tamit ci grand combat bi nga xam te am na ko mu war a bëre incha allah bu saison bi ubbee mais laata loolu ma bàyyi ko mu nuyoog ñi koy seetaan Ziza waaw nuyu naa la waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant a baax ñu santaat suñu ñaari di sant sama sëriñ sëñ Abdoulahad mu sañ Fallou mm. di sant bu baax a baax di santaat sëñ Abdoulahad mu sëñ Fallou mm. di sant quartier yeewu bi nga xam ne mm. nu mu munti mel rek ñoom la quoi di leen sant baax surtout fii nga xam ne mooy sunu base nga xam ne fii lañ déparé ba ñuy bëree mbapat yaa nag ay ñoom Sidi Ahmed Ahmed Lo xam nga ñoom Papi ak coxota booy bi toog avunaar mi xam nga ñëpp daal ba ay bégee ñëpp daal ndeysaan oui ambiance bi ma fekk lii ngeen di dund waaw fii moom lii moo fi am moom hmm? fii moom ku rëy du fi toog quoi wax dëgg yàlla. mbaaru parce que fii moom boo rëyee moom doo toog parce fii booy dañuy tooñ. xam nga hmm. dañuy mbalak lépp la ñuy def daal. ndeysaan. Hmm. et puis mu neex loo xam te ni fu quartier demee ci secteur yi da nga leen fekk gars yi li ñuy dund hmm. ah, loolu gisuma ko fi wax dëgg yàlla parce que ay xale rek laa ci gis macha allah. waaw parce que ñun ba ñuy nekk booy ñun nii lañ dem ko waar parce que musaan nekk booy ñun ñëpp tig lañ daan sol tig. bu mbafat amee ñun ñëpp ñooy demandoo. tig yu weex tig yu weex wala yu kii rek fu ñu munti dem rek ñun hmm. ñooy àndandoo même ne mas nawetaan yi sax ñooy àndandoo doon groupe quoi parce que noonu la ñu yàlla bindee quoi hmm. peut être tey jii yenn gars ñi dañoo dem joobi ñi xam nga rek affaire rek hmm. yooyu man damay tëdd ba quatre heures ma de parfois woo abonaa di ko ruubee <laughs> sama gars la quoi parce que li ñu boole maa ngi moom dafa bëri trop ñu bokk lu bëri tamit quoi noo gisee situation bu am Pikine rayu Aziz Dabala bi Nabou lay fii gars yi fii ñi ko ree dañ ko jege en tant que non c'est que xam nga jamono ji ñu nekk nii quoi man dama yaakaar ni Sénégal jikko ji ñoo fi nekkatul quoi wala dafa am mel ni dafa am lu ñu dugg quoi. Mhm. parce que ay Dabala. Mhm. ñun ñu ko xamee woon fii quoi. Mhm. parce que souvent ñun ñoo ko doon indi ci quartier bii ñu nekk nii quoi. lu fi mënta am rek ko doon indi quoi. xam nga di ko na ko suñu borom yërëm quoi. yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ak àjjana quoi. parce que ñun fi ñu dëkk ñun fii ñu toog nii. bu fekkee nit dafay bëgg a dugg agressé bu boobaa gars yi ñooy njëkk a di rey di mel ni boucher yu da justice bi taxaw rek comme ñoom xam daal li nga xam ñun duñu tël ñu dama demoon bi ndeysaan xam nga yéen justice bi taxaw parce que lii moom hmm. Pikine moom wax dëgg yàlla Pikine hmm. ñi xam ne ay doomu Pikine dëgg lañ doomu Pikine dëgg dëgg hmm. non du rey nit la doomu Pikine deug nga xam Dominique go juddo wala école neuf wala fini hmm. non du ray nit quoi. dëgg yàlla parce que ñun Pikine. Hmm. bo laalé ki di nga laal kay quoi. Hmm. deug yalla parce que man sama copain ni parfois ma mom ñu laalé laalé yu met mais duñ xex do gis loxo yu du ndeysaan ànd nañ pendant fu mu toll nii mi ngi def ay 21 ans fu mu toll nii ñu ngi ñu ngi ànd wala lu ko ëpp quoi. ben yoon lañ mës a histoire. xam nga mais amul. jël loxo wala jël gànnaay wala dara quoi man nag souvent parfois dama koy wax quoi am vingt cinq mille hmm. ñëw dëkk Pikine ñoo ñoo ko fegeewul woon mhm. turu na bu lay li na laa bett waaw ah. non si moom maa moom ñoo bokkoon même fu ñuy internet salle quoi man bu ma yëgee dégg rek laa ci am quoi hmm. parce que ma waxee ni lii la wala lii la damay waxuma li am parce que man moom bett na ma trop quoi franchement parle bu dëgg taxee rek wax quoi mhm. xam nga li ñu doon ñaan yàlla yàlla moom bu ci bokk quoi man mhm. naa di ñaan yàlla yàlla bu ci nambu lay bokk quoi waaw parce que bu ci bu ci bokkee ñun ni mu moom quoi parce que Aziz ko fi indi boobu kalandoo mhm. dama benn xew boo xam ne na ma lay laa woo téléphone ne ko dañoom xew dama bëgg nga ñëw mu jiital ñoom Aziz ñëw xam nga affaire yooyu noonu loolu acte boobu dafa nice mais xam nga li ñu naan xarit. Hmm. xarit mi ngi am ba léegi quoi. Hmm. xarit moom mi ngi am ba léegi. mi ngi am ba léegi waaw xarit mi ngi am ba léegi quoi xarit moom. mi ngi am ñu toll nit sañati am xarit. non parce que ñun ngi gaañ na waaw léegi laa ko ñu woo ma ne ko abu ak sa benn xarit bu jigéen ma ne ko damaa am bi bii loo xam mu ne ma noonu dafa léegi am ñoo xam ne xaritoom dañuy toog di waxtaan. di defandoo lépp ay xarit am non xarit xarit am mi ngi am ba léegi mhm. mais peut am ñoo xam ne ni rek ñoom mënuñu koo gëm quoi waaw parce que jamono ji bu dara amee rek kenn mhm. dootul wóolooti kenn mhm. mais ñun moom ñu ngi wóolante ba léegi parce que ñun quartier ñu dégg ñun ñëpp benn lañ wax la ayca ci bi nga yëgee situation wu coach Bakary li wax sa réaction lan la njëkk a doon kooku dafa mën a fen quoi déet dafa mën a fen quoi man coach hmm. ko man pour man deful yëfu gentleman quoi bu dee da ngaa ay vidéo jàmm naan ay diw bokk seeg yooyu loolu du yëfu góor gentleman dëgg da ngay jaar ci digg wax mais hmm. ko jéem a ngem yaa ngi ñi yéen yaa ngi ñëw yéen a yem ay nga yow naa fekk nga mhm. naa fekk bu rëy la parce que mënoo taxaw xam nga mhm. ay kilifa jëm xam nga tey jii boo nee Ziza dafa def benn affaire mhm. ñu xëy génne ay affaire am sama dama am doom dëgg la moom eh, bu doon bëgg a tiital xam nga askanu làmb làmb jaa ngi defaru combat yi neex ñi nga am nga xëy naan ay vidéo jaa mais ku nekk am nga lu ngay def dëgg la ku nekkul si bu gudd bi rek yaa ngi si bu gàtt bi peut-être ñoo feeñ la mais ëllëg yow di nga feeñ la alul ko mais xam nga taxaw di expliquer yore sa téléphone. c'est que xam rek la moo waral loolu. lu waral parce que nekkuñu fi nag. waaw. waaw nekkuñu fi de. waaw waaw mais bu nekkoon fii ñëw def fi loolu. sama genre gi waaw mën ko fekk tanc ko tanc yu mel kooku day dërëm waaw parce que fi moo tax ñu rek lay def kooku noonu sawaay c'est que kooku dafa ñëw xama rek mm-hmm. moom genre day jaxase daal mm-hmm. ñëw di jaxase bu xëyee nga kër kër mm-hmm. Gaston xëy nga xër kër Aziz Ndiaye xam nga di def affaire yoo xam ne man Gaston ba ma fa nekkee waa kër Aziz Ndiaye ñëw nañ indi fa seen i nag affaire yu ak tubu naay mais tey ji genre coach baakar yooyu ñoo leen di jaxase ñooy jaxase waaw parce que influenceurs yi léegi xaj ay seytaane effectivement rawatina tamit suñu milieu lamb bi nga xam bu ñu yaakaar ñun daam ku ñuy tiit am ku ñuy ragal ñun li wax ñun tiitu ñu si ragal ñu si dëgg la xaaj bi yëpp ay naaf fekk na ah. parce que xaalis bi moo tax mm-hmm. ñoom ñoo yàq lamb ji dëgg la booy caatu yaraax ba muy bëree noonu acte bi mu ñoom ñoo gën a tax mu def loolu hmm? caatu yaraax bëre bi mu bëree nii ñoo gën a tax mu def loolu moo taxoon waaw ah, parce que ñoom ñooy influencé ñoom ñooy woote fii ku di wax naan nii nii affaire ak yooyu te loolu noonu du acte du acte wax dëgg yàlla ñi seen di da ngay gore ci lépp quoi mm-hmm. xam nga ñun mm-hmm. yéene mm-hmm. na ay mbër yi fi mbër yi dëkk Pikine affaire ak yooyu bu nekk Pikine kay génne da yor say preuve da ngay génne mais taxawoon naan ay du ma wax fii affaire ak di bëgg ay vie rek la bëgg alors que li mu def sax day jaxase xel parce que boo nee Balla Gaye bokk ci Modou Lo bokk ci Eumeu Sène ah la de guerre ci nangam. mais génération bi ci suuf. Ah. li moo Boy Niang. li li moo Ama Baldé. waaw li moo ñeneen ak ñeneen. waaw ak ñu mu mënta wax ay ñoom guy geeg ñoom xel day tee. waaw mais mooy lu ma la parce que tey jii Boy Niang am na jabar. Mhm. Ama am na jabar am na doom moom mhm. Boy Niang. Mhm. guy gi ñoom ñëpp am nañ ay jabar am ay doom. mais te genre acte yooyu nga koy wax. xel dina tey loolu mun naa tas sax ay sëy jàmbur. walaay dëgg la. billaahi wallaahi laazim. dëgg la naa tas sax ay sëy jàmbur. walaay dëgg am na ay fecckat yu fi nekkoon ñu wan leen bëccëgu ndara ka am ñuy def naka sudul noonu mm-hmm. tey ji ñi ngi waat ci kaw seen ñi ngi mel ni du woon ñoom wallaay dëgg la te pourtant xoolal kersa tey ji kooku mm-hmm. su nit demoon di ko tax ay famille dañ naan looy dee kii nee te pourtant jigéen bu baax la wallaay dëgg la xam nga àdduna kenn bonul dëgg la di nga fekk sax koo xam ne nii ci mm-hmm. tey taxawaal mu nekk jigéen joo xam ne nii da nga koy fay pour sekk ak moom dara nga am lu sekk ak moom xëy bëgg ko ba dem tax ko mais xaw àdduna nañu rafetaatal quoi rafetaatal dafa am solo ci àdduna parce que ay doomu jullit lañ xam nga ñun yàlla moo ñu dimbali mhm. ba ñu amee Cheikh Ahmadou Bamba maam Maodo Malick Sy maam Baye Niass maam Limamou Laye mais kon sinon kon ñun boom nañ ñu lu yàgg parce que ñun maanuwuñ dëgg la ñun moom maanuwuñ mhm. ñun moom maanuwuñ parce que si lu bon rek la ñun suñ ñun duñ defar dañuy fabriquer rek teg waaw walaay dëgg la